yitte bu dikkul yar du mën a dikk waaw euh, yonent bi bu jógee ci jihaad ba ñi dee dee ñi ñu jam ñu jam leen mu ñëw ak coonoom ñu di ko dogale mu ne randu leen randu leen maa ngi jóge ci jihaad ju ndaw ja maa ngi jëm si ci jihaad ju mag ji te mooy biir kër gi biir kër a gën a metti front ba ndax fi ngay defaree sa bopp front ña ngi fay dajeel danga leen di rey mbaa ñu rey leen loolu yomb na lool du ak njàmbaar waaye toog ci biir kër gi yilif ñi fi ne te yar sa bopp xare baa ngoog waaw وقال لكم لكم القشور لكم القشور ولنا اللباب ها لكم القشور ولنا اللباب yitte دي بو de boo yemee ci ak defe saal baa nga ci biir waaw boo yemee ci ak defe ni sotal nga juum nga xar ko saal baa nga ci biir waaw boo àggul ca saal ba kenn du lekk ak waaw saal la lekk waaw